asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant xadimu rasul suñu yaakaar ñu ngi nuy bokki jullit yëpp di ziyaare bokki taalibe yëpp tam di yëkkati suñu kàddu rek ci turu comité d'organisation grand màggal bu Touba ngir lu soxal yu màggalu Touba rawatina ci pàcc bi ñu nekk muy lu jëm ci wàllu hydraulique mu mel ne dëkk bi dafa bari ay jafe-jafe lool ci wàllu ndox ba tax na waa OFOR andi ay matuwaay yoo xam ne dañu ko indi ci dëkk bi ngir jàppale ko population bu Touba loolu nag mu laaj ñu leeral ko ñépp ba mba ñëpp maase ko xam ndax ku wax màggal wax ndox te ku ne xam na ne jafe-jafe ndox bëri na ci dëkk bi ngir loolu nag ci lëkkaloogu comité d'organisation lëkkaloogu ofoor am na ay jumtu ay camion yoo xam ne andi nañ ko ci dëkk bi ngir képp koo xamante ne bii da nga am jafe-jafe ci wàllu ndox foo mën a nekk ci Touba am na ay numéro téléphone yoo xam ne moom lañ leen bëgg a jox ngir ngeen jokkoog ñoom ci numéro téléphone yooyu yi bu ngeen jokkoog ñoom fu fu ngeen fi mën a nekk ci Touba danañ leen jàppale ba wa jafe-jafe ndox yooyu mën a wàññiku loolu nag mooy li nga xamante ne bii Serigne Ousmane mi jiite comité d'organisation wax na ne bëgg na ñu leeral ko waa dëkk bi yëpp ba dëkk bi yëpp xam ne euh, am na ay jumtukaay yu fi nekk yoo xam ne loolu moo tax ñu andi ko fi ngir lu yéwénal màggal gi. Euh, numéro téléphone yi nga xam ne képp ku bëgg a jokkoo ak ñoom ngir ñu jàppandalal ndox euh, mooy numéro yii muy bëgg a lim.

foo man a nekk ci Touba mën nañ la fa fekk dimbale ci wàllu ndox su fekkee mënoo woote ci numéro itam te nga am euh, mën a te am jotum mën a dem ci forage su Ndaamaatu foofu tam fa la base ba nekk soo fa àggee te gaaral sa yitte incha allahu dañ la ci jàppale suñu demee ba màggal gën a jege incha allahu danañ gën a indi yeneen danañ indi yeneen oto yu gën a bëri yooyu lépp rek ngir waajale ak màggal gi ak jàppale ci itam population dëkk bi ñu ngi ñaan suñu borom yóbbu ñu ci di dugg ci bismillah rahmaani rahim maggal ko ba mu jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin ñoo am ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa mi tax ñuy def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu tur beeg sant bi Sëriñ Mourtada Bousso commission hydraulique ak électricité bu comité d'organisation Grand Magal de Touba